demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne xéem asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi ci jël ñaari kaddu rek ndax sëñ Ousmane wax na ci turu comité de pilotage ba pare waaye dafa am cant yoo xam nii rek dañ koo am di ko jëmale ci daayira yi ndax biñ commencé yëf yi biñ demee sëñ Ahmadou Maxtaar ba dem ci ñu war a dem yëpp dem ci sëñ Abdourahman Mbakke bu sëriñ Cheikh mu boole noog sëriñ Moustapha bu sëriñ Cheikh ñu boole noog waa wilaya ñu dem Taïf sëriñ Sidi Mbakke mii ak sëriñ Cheikh Thioro demal nu Taïf waxtaan ak sëñ Moustapha Mohamed sëñ Moustapha Mohamed jël ci engagement bu rëy boole na ak sëñ Baara rakkam sëñ Baara jël ci engagement bu réy loolu moo tax waa ahibaay yëpp ñi ngi fi ñëw ak mbooloo ñoo tax ñu yëkkati kàddu yooyu di leen sant di leen gërëm di sant seen njiit Cheikh Mouhamadou Moustapha Mohamed di sant sëñ Abdourahmane Mbakke mii nu booleeg sëñ Moustapha rakkam njañ astu ñu liggéey ci loolu ba mbooloo mi yëpp man fee ñëw di sant itam daayira Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbakke bi nga xam ne ñoom it organisé nañ ñëw fi ak mbo ak doole ndax xam nañ Cheikh Moustapha ak sëñ Baara lu ci waay xewle ñëpp war a takku nekk benn say def ko loole lool yi yi baat rek lañ amoon ci liñ ci bëgg a wax di sant tam ndax sëñ Moustapha bu sëñ Sidul Moxtaar di jëwriñu sëñ Baara woote na fi ay yoon lépp di gëstu ba xam yëf yi ni mu demee ndax xam ne yëf yi yëfam la ni ci sëñ amatul Moxtaar amee responsabilité noonu la ci amee responsabilité loolu moo tax heure bu ne mi ngi woo sëñ Sidi mi di ko laaj yëf yi ni mu demee ak mel noonu di sant nag njabootu. Cheikh Moustapha weeg njabootu sëñ Baara gi ndax boo xoolee jàpp ko ñu jàppoo ndax bu dee liggéeyee Cheikh Moustapha rek nga xam ne li sëñ Ousmane waxoon fii lu nu war mooy solidarité nekk benn àndandoo liggéeyal Cheikh Moustapha liggéeyal sunu maam Serigne Touba kon nag daayira yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen sant te di leen wax ne programme bi day continuer ñu ngi leen di xaar Louga ñu ngi leen di xaar Diourbel ñu ngi leen di xaar di ñaan yàlla nii ñu ko ubbee mu am réussite yàlla na yàlla dimbale ba lépp mel nii ba Ndakaaru mu mel nii ñu tëj koog ci alhamdulilahi rabbil alamin di jaay rasulullahi sallallahu alayhi ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf jëf demam nga ump na mindeef te um na boppam kuy mindeef kudul malaaka ya ko wóof ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq